ah xayun fukk ak juróom ñett la xaaba huit yaaba dix la dix ak huit ñaata la dix huit dix huit fois dix mu jël la trois cent vingt quatre mooy secret salaatul fatiha wallahi moo tax bennam gën na julli salaat yu ñaata xaq moo ci nekk naasil xaq bil xaq muy ñaar hakka qadri muy ñett hak xaq bu nek 108 huit la cent mu jox la ñaar 324 moy wa kalimatullahi al ulya lu yalla rek ci kaw bu ñëm ne won ci suuf te yalla na ci kaw ci kaw ngay nek mo do mën ngeen ngeen wirdu ko ngeen bolé ci la ilaha illallah ya hayy lu ngeen sumbu dana soti lu ngeen jëm dana ànd lu ngeen dogg yalla may leen ci jamm jant bi soogul ku ko yalla mun lo buñ joge nga def ko 332 yalla na yalla yàlla te ha 300 324 maa ngi jégal 324 324 te 324 bobu moy caabi adina bi du yag da bo bëggee jot senegal da nga ne 00221 ah bés a ngi ñëw lépp ubbe ko ci adina neuf mo koy ubbe mom la yonte bi du no 63 ans

250 ñaari 2 muy 8 ak 5 ba boko bolé muy 9 Allahu akbar muy dundu sayyidna Muhammad yeen ñaata la yeen moy 1440 1449 la yeen lo ci yëngal mu yëngal na ngeen yëngal way way bu leen yëngal lu metti de <laughs> na ngeen yëngal yu noy rek ah, ngeen yëngal ko ci wax yalla may ñu alal mañu gudd fan mañu ñu teranga edina siratul mustaqim yalla yalla yalla legi poche legi ngeen am diplome legi ngeen am xey legi ngeen am ngol ah, ren at bu kéemaane la atu yon ci yalla ishaqal la ah, ndax ren at bi mi ngi duggee tala mi ngi duggee guddi allah ba dem ci at bobu ci la yon ci yalla ishaqa juddoo won yonante la bayam du yonante ibrahim domam du yonent yaqub setam du yonent te moy yusuf ak bu ak bu kemana bo ci gol gol nga am jam deug nañ fofu doyna ah ma dolli wa ah, ñu dem ci ci kon kon bay alaji bu sax lolu do ndax ma dem ku bax lo alaji bu sax yalla yalla yeureum ko yalla gis ak serigne mawdo malik si ñu tok ci ndey jogu cheikhou tidiane ñu tok ci ndey jogu sayyidna muhammad ñu toog ci ndey joor ku baax la woon alaaji bu saafa tant bu mu fanaanoon ñëpp xam yàlla ñëpp xam yàlla ñëpp xam Seydina Muhammad moo doon wax loolu ndax ma dem waaye ñu ne ko bàyyi ibu mën ngaa dem waaw de ndeysaan alhamdulilah kon ma yem foofu ci xayun kon Seydina Ousmane kon na ko wird lim boobu moo toll ba kalimatullahi al ulya boo bindee wa kalimatullahi al ulya ca waaw ba ba ca alif ba moo la 324 te 324 tamit ba 9 ndax 3 la ak 2 muy 5 2 ak 4 ba 9 encore euh, moo tax kenn du ci fukki fan ñëpp ci juróom-ñeent fan lañuy ñuy dee ren danaa tabax bi nga tambal ben at rek nga ne kën nag doo ko yeggal sama tool bi déwén li la ci dolli Do ko ci dolli mukk euh, noonu rek Yalla na yàlla fay yàlla maa ngi sant journaliste yi. waaw ah, rajo yëpp ñi fi teew démb ba léegi ñu ngi baagante